Euh, ñu lay jaale kenn koo xamante ni monument la woon ci làmb nekkoon suñu papa muy booy Bambara yan témoignage nga ñu mën a defal ci moom. nit ku baax nit ku bëgg sport nit ku bëgg làmb ñun bu ñu bëggee làmb booy Bambara man bu ma duggee làmb booy Bambara bu ma amee mbër booy Bambara lu ma am ci làmb rek booy Bambara moo tax man ma dem ma dugg ci. mu nekkoon ku ko bëgg nekkoon sunu idole ndax moo doon sunu star koñ moo fa daan bëre koy bëreel ñu ne Mbaye Guèye koy bëreel ñu ne ba Bakassar koy bëreel ñu ne Moussa Diame koy bëreel ñu ne maam góor gi yooyu daf nu doon neex te loolu booy bambara ko fa indi dem daan gaa yëpp ñu gàddu ay drapeau kon donc moom moo tax ñu bëgg a làmb bu daan bëre ji dañ daan taxaw ci buntu kër gi bu nu génnee mbiskit yeeg yëpp ñun lañ koy sarax ñu nekk ay xale am ay sept ans ki huit ans ki mu doonoon koo xam ne vraiment dootuñu ko fàtte. di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana te it lu mu mës a am indi na ko ñaari tali lu mu am rek indi na ko ñaari tali bu amee drapeau fa la jëm bu amee bu gañee fa la jëm bu amee écurie mi it fa la koy bi mu amee écurie écurie ñaari tali Grand Dakar la ko tuddee ñëpp fekk nañ ko kon donc seulement kon sincèrement daal li ñu def mooy ñaanal ko xale yi mu fi bàyyi ñu am jom ñoom it yeggale flambeau bi parce que dara wéyut hmm, faj nañu faj faj faj yàlla ni déedéet du ni tay faj waaye yàlla ay wéral yàlla nag lii la ci namoon a ah, te comme que ñun ñëpp ci moom la ñuy dellu moom mi nu fa jiitu nan ko ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana. daan naa gis lu bëree bëri ngeen daan bokk plateau làmb di analyser loolu lan la lan nga ci daan jëlee. sincérité bi nekkoon ci moom mbër yu bëri danoo mere woon Boy Wamara bu ne diw nangam la nga mere ko après loolu day feeñ boo bëree. am na combat yu bëri Boy Bambara dafa joxe xalaatam avant combat ñu si presse bi wax bind ko nit ñi sikk ko bu ñu demee ca làmb ja loolu mooy am waaw loolu moo tax sincérité boobu nekkoon ci moom moo taxoon bu ma def plateau des a ma ne ko père kaay toog fii waaw alaaji papa Boy Bambara grand papa lépp laa ko daan wax sama xarit la woon et puis daal vraiment mu doonoon nit ku baax moom wax na mbër avant mbër bay bëri mu wax ci moom mbër ba dem ca presse ba lu ne mu wax ko ratatat ratatat daf ma bañ daf mbër ma ba mu demee la booy bambara def la la la booy bambara wax la def ñu daan ko te du benn mbër de mu naa la ci ñëmal quatre lutteurs yoo xamante mere woon nañu booy bambara ndax franchise am ci sport xam nga sportif pire pire day franc xam nga Sénégal dañuy jaabale analyse ak wax sa xalaat du benn <laughs> comprendre analyse ak wax sa xalaat du benn nit day analyser objectivement booy wax xalaat da ngay xaw a far wala boo mën nga sax wax sa xalaat mu doon dëgg waaye daal du benn nan ko yooyu nag moo am Sénégal comprendre nga booy bambara da daan analyser daawul wax xalaatam li mu gis la wax waaw loolu nag moo ci ne. moo taxoon li la daloon da koy dal saak dimanche bu mbër bëree ñu ne moom la faral. waaw loolu làmb mel noonu làmb nag maa ngi la yëgal ñu xamul dara ñoo ëpp ñu xam dara waaw des fois da ngay wax ñoo xam ne ñoom xamuñu làmb xam nga xam nga làmb du rek yow nga gis ni ñaari mbër yaa ngi léewtoo non non am na leneen lu ne ci biir loo xam ne yow mi seetaan boo xamul làmb doo ko xam dañuy bëre Birahim Ndiaye ngi nii toog may may waxanteeg moom ñu muutloo ëmb seen ñuy wax di wax di wax ba mu ne léegi jël bee ci des ñëpp gis mu léegi ma ne ko nu muy def mu ne ma da koy tegal sees mu daanu mu def loola mu jeex xam nga am na ñu ci mere Birahim pourtant dëgg la wax mbéy gee danoo toog zàlloo di bëre zàlloo jàpp. Zallo cek Zallo jàpp jàpp jàpp ba ci ak Zallo bàyyi loxo mu ne oh, oh, oh làmb ja jeex na teg nu ci 10 secondes cek daan ko. comprendre parce que ñoom ñoo xam. ki xamul nay déglu di saku xam-xam. booy bambara yàlla na ko yàlla xaree àjjana. ci barke nan bi jërëjëf.